وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعين ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين وبعد السادة إخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موكي تيو چي تانتبي چي براب سل بي فن من دي جوغي مكي دغلو رايو يكوي تخل مكي سيتان تلي يكوي تخل maa ngi leen di nuyu nuyub lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi ziyaara ñëpp di ndokkeel ñëpp ci bés yu sell yii ñuy màggal juddug yonent yàlla muhammad aleyhi salaatu wa salaam ci barab bu sell bii ci madinatu Cheikh Ibrahima Niass maa ngi ziyaara alxalifa sa xalifatu saaxibil fayda al Cheikh Mouhamad Mahi Ibrahima Niass di ziyaara ay. rakkam yu góor ak jigéen di ziyaara al imam ratib cheikh Tidiane Alioune Cissé di ziyaara di ndokkeel an naatiqu rasmi cheikh Mouhamad Mahi Cissé di ziyaara di ndokkeel mu baay yëpp fuñ ñu mën di nekk ñi teew ci barab bi ci dëkk bi ak fuñ ñu mën di toll ci àdduna bi ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel di ziyaara taalibe baay yëpp fu ñu mën di nekk di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu sàmm ñëpp ñu nekk fi ci jàmm màggal bés yu sell yii ku ne dellu fa nga jógewoon ci jàmm ànd ak yokkute zahiran wa batinan di ziyaara nag lañ na saqaafiye ci njiital Mouhamadou Siraju Diin Ñas am yéen a waxtaan ak yéen ci tomb bii ñu sant ma tey mooy asaka asaka pexe bi mu am pour xeex ak ñàkk jële ko fi yàlla tabaraka wa taala farataal ko mu nekk ñetteeli ponk ci ponki lislaam yi nekk juróom gannaaw ñaari baati seede gannaaw julli asaka mooy ñeen ñetteeli ponk bi nga xam ne fu yàlla tuddee julli daanaka tudd na fa asaka am na lu ëpp juróom-ñett fukki barab yoo xam ne yàlla tudd na fa jullit tudd na fa asaka lan mooy asaka ci arab azaka muy azakat mu ngi jógee ci baatab zaka verbe bi muy fi'l bi muy firi yokku ak dolleeku buñ ne mbir mi yokku zaka shay'u mooy mbir mi yokku na dolleeku na buñ ne zaka fulaan nag mooy waa ji baax na gën na baax wala yiw na asaka nag farata la yàlla moo ko farataal ci jullit yi oomal muy cër boo xam ne alal la day génn ci alali aji woomal ji ñu delloo ko ci woy ñàkk yi ndax ñoom ñoo eyoo asaka ci asaka jooju yàlla dafa digal ñim jox alal ba ñu woomal nañ ko génnee at mu nekk xeetu alal ju man di doon nañ ci génnee asaka jox ko woy ñàkk yi ñoo ko moom kon asaka dafa ñëw pour xeex ak ñàkk jëlee ko fi ci biir société jullit ñi asaka nag système la boo xam ne yàlla moo ko teg rëdd ko sant yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu organise ko bañ mën a jël asaka yi ci woy woomal yi takk ko ba xam nan la tollu ñu séddale ko way ñàkk yi asaka jooju système la bu am kàttan lool pour mën a xeex ak alal ji ñu rënk ci banque yi amul nag benn système bu fi ñëwoon démb wala bu fi ñëw tey wala mu man fi ñëw ëllëg ba mën a xeex ak alal ji rënk ci banque yi bañ koy jëfandikoo mu jëriñ jaami yàlla yi asaka nag mooy système bi am capacité ak compétence mën a génnee alal ji ñu rënk ci banque yi dugal ko ci sakkanal yaxanal ko mu meññ jëriñ jaami yàlla yi nga xam ne ñooy dund ci àddina bi ku ci ne gis ci sa bopp moo tax lislaam gis-gisam ci ñàkk gis-gis la boo xam ne wuute naag yeneen système yi nga xam ne doomu aadama yi ñoo ko tëral ndax lislaam ci yàlla la jógee l'islam xool ñàkk ne ñàkk danger la ci pas-pasu nit ki mais danger la ci jikkoom ndax mën na ko yàq danger la ci lan xalaatu nit ki ni muy xalaatee danger la ci famille bi mais danger la ci société bi l'islam ne ñàkk weesu na loolu dem na ba nekk balaa dem na ba nekk musiba moo tax lislaam di sàkku ne nañ àndandoo xeex ñàkk mu jóge ci société bi kenn ku nekk dund ci tranquillité dund ci tedd nga dund ci jàmm ak salaam mën a jaamu yàlla tabaraka wa taala moo tax bëri na saxaaba yi saxaaba yoo xam ne nettali nañ solo jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne yonant nekkoon na ca jamonoom daan muslu yàlla pour mu musal ko ci fitna ñàkk ndax ñàkk fitna la ñu jële ci sayda aïcha muy suñu yaay radiallahu anha yal na ko yàlla gërëm mu ne daan na dégg yonent di wax ne yow yàlla maa ngi musalu ci yow nga musal ma ci fitna safara ba safara duma lakk maa ngi lay ñaan nga musal ma ci fitnaay mbugalam safara wante maa ngi lay ñaan nga musal ma ci fitnaay woomal ndax am alal ànd naag fitna boo amee alal te dundoo ci ci njekk ak teraanga yaa ngi dund fitna moo tax mu daan ñaan yàlla musal ko ci fitnaay woomal riche am alal naka noonu daan ñaan yàlla mu musal ko ci fitnaay ñàkk ñeenti fitna yooyu benn baaxut ci fitna safara mbugalam safara wante fitna ak woomal ak fitnaay ñàkk benn baaxut ci yal nañu ci yàlla musal kon nga gis ne ñàkk lislaam bàyyi na ko xel bu baax moo tax asaka ñëw pour jëlee fi ñàkk waaw war nañ mën a laaj suñ bopp ndax asaka moom kese mën na xeex ak ñàkk ba gañe ko wala fokk mu dimbalante ak yeneen système yoo xam ne ñooy àndandoo liggéey pour ñàkk jóge fi ñu xool asaka mu nekk système boo xamee ne ci yàlla la jógee mu méngoo sécurité sociale bi nga xamee ne yeneen régime yi fi jaar wala système yi fi ñëw te l'islam jitu len fi munuñ fexe fexe ba indi sécurité sociale bu melni bi fi asaka indi ndax asaka sukkandikuwul ci sarax bo xamné nit ki moy ciobare ho rek saraxe ko wala nit ki lay sob rek mu joxe ko déedéet asaka ponk l'islam la jaamu yàlla la dañu forcé julit bi womal mu joxe ko kon at mu jott dañ ko war di joxe kon loolu mooy tax mu mën a liggéey liggéey bi nga xamee ne moo tax yàlla tabaraka wa taala farataal ko mu nekk ponk ci ponk lislaam yi te li ko tax a ñëw mooy dimbale doom aadama bi ñàkk mu dund ci kifaaya tàmma mooy am ba doyal te yàq du ca ànd pasar pasare du ca ànd nit ki am dund gu sell mën a lekk ba suur mën a sol yére ba mu doy sëkk wante mu mën a am fum dëkk bu feebaree mën a faju bu bëggee jàng mën a jàng ndax réer baaxut ñépp dañoo war a jàng pour xam loolu moo tax asaka ñëw pour dimbale jullit bi nga xamee ne yàlla daf ko nattu ba loxoom jotul gannaawam asaka garanti ko juróomi mbir yi mënta ñàkk juróomi mbir yooyu ban ak ban la mooy lekk ba suur naan ba màndi sol yére ndax doomu aadama fokk mu woddu doomu aadama fokk mu lekk naan mais doomu aadama fokk mu am fu mu dëkk ndax warta tëdd ci mbedd mi doomu aadama fokk mu faju bu feebaree mais doomu aadama dafa war a jàng pour xam juróomi mbir yi faratale ci dund ak doomu aadama mënta ñàkk benn bu ci manqué rekk dund gi dana sooxee moo tax asaka dafay ñëwal pour garantil ki ñàkk ki juróomi mbir yi mu man koy am loolu moo tax yàlla ne yéen ñi woomal génne leen asaka jox ko ñu ñàkk ñi ndax ñu dund ci dund gu sell comme yéen ñi am ni ngeen di dundee loolu moo tax asaka ñëw bu ko defee nag nan la ñuy jëfandikoo asaka bam saafara jàngoro yi nga xam ne ñàkk moo koy jur moo tax lislaam bi ko yàlla wàccee dee la dëbbi ca tàmbali ga ca njëlbeen ga la commencé rek libéré doom aadama mu am liberté bu nekkee jaam mu goreel ko bu ko ñàkk tënkee mu fexe mu jógee ci mbugalam ñàkk am dund gu sell am dund gu teey loolu lislaam samp ay ponk yu dëgër yoo xam ne dafay saxal jàppalante ak dimbalante ci cadre l'islam ci diggante jullit ñi ñi woomal ak ñi ñàkk yàlla wàcce aaya yu bari di ñaax jullit ñi ñu dimbalante boo demee ca suratul maida ca aaya yi njëkk ca bopp saar ba danañ fa jàng wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala ismi wal odwaani dimbalante leen yéen jullit ñi ci seen diggante yenu neen ci lépp lu baax ci lépp luy jur teraanga lépp luy juy jàmm ak salaam ngeen moytu nag dimbalante ci loo xam ne day jur bàkkaar ak noonoo loolu yàlla moo ko sant jullit ñi lislaam jàngale ko tàggat jullit ñi ci loolu du loolu kese de mais lislaam indi yeneen système yuyu gën a yaatu gannaaw bi mu indee système jàppalante ak dimbalante mu indi asaka wante dafa santaane liggéey dafa santaane ne nañ liggéey liggéey leen pour am lu ngeen lekk am lu ngeen naan am fu ngeen dëkk ba bu ngeen feebaree mën a faju ba bu ngeen buggee jàng am fu ngeen mën a jàngee am téere yu ngeen mën a jàngee am élément yoo xam ne moo leen di dimbale ci njàng mi ngeen di def kon ñetti ñetti ponk yi bu ñu àndee liggéey bu ñëwee lëngoo ak dimbalante lëngoo ak asaka ñoom ñett rek mën nañ xeex ñàkk mu jógee fi kon nga gis ne lislaam a ngi noonu di xeex ñàkk di jëfandikoo ñetti ngànnaay asaka nekk ci benn asaka nekk ci benn ñu xool nag asaka buy xeex ñàkk yan yoon lay jaar ak yan élément lay jëfandikoo loolu nag pour ñu xool ko dafa laaj ñu ànd xool ñan la lislaam wax ne ñoo war a jël asaka buñ ko génnee ñan lañ koy jox yàlla tabaraka wa taala wax ci suuratu tawba ci alquranul karim ne innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masakini wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqaabi wal gaarimina wa fi sabilillahi wa ibni sabili faridatan min allah wallahu alimun hakim ci suratu tawba yàlla tënkal ñu juróom-ñetti xeet ne ñii lañ war a jox asaka pour génnee fi ñàkk mu mel ni boo laajoon yàlla ñan nga njëkk a tudd mu ne miskin yi ak fuqaraa yi yàllaa ngi tudd al fuqaraa ñoo jiitu masakin yi topp ci foofu nag boroom xam-xam yi ñu laaj am ci ñu laaj ne waaw ndax faqir ak miskin benn la wala ñaari xeet yu wuute la boo demee ci ku mel ni abu yusuf ak ibnul qasim muy àndandoohu malik ya ñoom dañuy wax ne miskin ak faqir benn la yeneen borom xam-xam yi muy jumhur yi na leen déedéet faqiir xeet la miskin xeetu boppam la ku mel ni tabari yi ñëw attale ci seen diggante ñaari xalaat yooyu ne moom gis-gisam daal mooy faqiir ak miskin bokkut mu ne faqiir moo gën a aajowoo mooy ki nga xamee ne dafa ñàkk te am na kersa tàllal loxoom yalwaan kooku mooy faqiir mu ne mu joxe exemple mu ne koo xamee ne mu ngi mel ni soxlaam bu doon fukki dërëm par bés ñetti dërëm la am walla ñeenti dërëm wala ñaari dërëm te soxlaam ci bés bi fukki dërëm la mu ne kooku mooy faqiir ñu ne ko kan mooy miskin mu ne miskin mooy koo xamee ne kii dafa ñàkk mais rusuta tàllal loxo yalwaan moom mën na dem yalwaani amma faqiir ne moom dafa am kersa yalwaan mais miskin moom mën na yalwaani mu ne mu ngi mel ni soxlaam fukki dërëm la ci bés bi mu am juróom-ñett wala mu am juróom-ñaar manki ñett kooku mooy miskin mu ne kon nag faqir moo gën a ñàkk miskin tabar yi moom noonu la attee waaye lu ci man di xew ñoom ñaar la yàlla njëkk a tudd ci aaya bi ne ñoom la ñu war a jox asaka ñoo jiitu ci ñi ñu war a jox asaka muy al alfaqir ak miskin waaw bu ñu leen bëggee jox asaka ji pour ñu jëriñu ci ba ñàkk jógee ci ñoom lu ñuy def ñu ne nii la ñuy def dañuy woo xool masaakiin yi xool fuqaraa yi képp ku ci am métier mën a liggéey lala la teree liggéey nag mooy da nga amul place boo liggéeyee amuloo njëfandikukaay yoo liggéeyee gisuloo ku la sant liggéey mais am nga métier man nga am atelier buñ la jàppalee moo xam maçon nga menuisier nga mécanicien nga tailleur nga commerçant nga l'essentiel mooy am nga métier mën nga liggéey am nga kàttan liggéey mais malheureusement gisuloo foo liggéeyee amuloo matériel boo liggéeyee ñu ne kaay bu génnee asaka ñu woo la yow bi am métier mën a liggéey am kàttan liggéey ñu financé la ci la nga xam jàppale la nga am sa atelier bopp am sa matérielu bopp di xëyal sa bopp di gontal sa bopp ñu jàppale la encadré la defal la sa formation bu dëgër di la saytu di la dimbale di la sàmm di la teetee ba sa projet bi mën a réussir nga mën a am loo lekk am loo naan mën a leexal sa njaboot geeg ñi aju ci say surga mën a dimbale sa mbokk yi mais dem ba yegg ci darajatu mën a joxe asaka comme nañ la ñi la jox asaka nañ daan joxe asaka ngay joxe asaka noonu la lislaam gis ne noonu la ñuy dimbalee miskin beeg faqiir bi ba mën a gàddu boppam du tàllal loxo yalwaan ma sàmba wala yalwaan ma demba mu nekkee ab commerçant ñu ubbil ko magasin di ko jàppale di ko saytu ba mën a réussir ci commerce am toog bay génnee asaka di faj ay soxlaam di fajal njabootam ay sox seeni soxla mais di dimbali ay mbokkam noonu la ko lislaam gisee ci asaka léegi nag buy baykat ñu jàppale ko mu am tool am jiwu am matériel bu muy bayee ñu jàppale ko yombalal ko ndox mu muy roose toolam bu bayee ba góob jaay ñu dimbale ko mu jaay am lum lekk am lum naan am lu mu sol am fu mu dëkk mais mu leexal njabootam dimbale ay mbokkam dem bay génne asaka di jox masaakin yeeg fuqaraa yi nga xamee ne ñoom amaguñ lim am moom ki nekkoon faqiir démb te tey mu jóge ci faqra ba nekk ko woomal wante nag buñ gisee miskin boo xamee ne bii amul métier mënta liggéey dafa feebar dafa am laago bu ko teree liggéey sëlmaxala loxo ya mënta liggéey tànk ya mënta dox moom daal yàlla nattu na ko mu nekk am laago bu ko teree mën a liggéey kooku nan lañ koy dimbalee ñu ne dañu génnee asaka dañ koy teg ci barab boo xamee ne dana am sécurité dana am garante bu leer ñu xam kan ak kan ñoo soxla soxla bu mel noonu ci fuqaraay ak masaakiin yi bu weer deexee ñu dem ca barab booba ñu yëkkati lu leen mën a dundal ci weer ñoom ak seen waa kër njabootam ñu jox ko ko mu dem dépensoo ko weer bu nekk ñu koy defal noonu ba at mi jeex wante nag duñ dajale dundu atam lëmm jox ko ko bu boobaa mën na ko yàq ci benn fan ci ñaari fan ci ñetti fan moo tax ñu ne kon lam war a dundee ci at mi nañ xool nan la toll bu asaka ji génnee at mu nekk ñu xool li war a mën a dundal ma sàmba ak njabootam ma dembali ko mën a dundal ak njabootam ma pendali ko mën a dundal ak njabootam ñu konte ko ba mat sëkk fukki weer ak ñaar ñu dénkaane ko ci barab bu am sécurité weer bu jot kenn ku nekk ci ma pan ma penda ma sàmba ma demba ñu dem foofa ca barab boobu ñu compte lañ leen di jox par weer ñu dem jënd seen ravitaillement dund dund gu te sell mën jaamu yàlla tabaaraka taala comme seen mbokk yi ni ñuy def ñu ne ci système bii lañ koy dimbalee yàlla may ko fan wu gudd ak wér mu dund ci noonu ba soob yàlla tabaaraka taala mu jëlee ko fi wante dana jógee ci ñàkk moom donc kon ñaari élément yi ñoo njëkk ci jël asaka buy faqiir bi ak miskin bi ci yoon bii lañ mën a jaar dimbale leen bañ takkale kook ñàkk ci kàttanal asaka ak ci man-manu asaka ak ci dooleeg asaka bu ba tey am na beneen système bu ñu leen mën a dimbalee mën nañ leen di wutal tool boo xamee ne dañ leen koy sampal jël ay nit embauché leen ca ñuy bay tool ba bu tool ba meññee ñu récolté ñu góob buñ góobee jaay fay ña doon liggéey ca tool ba la ca des ñu jox ko masaakin ak fuqaraa yi ñu dundee ko faj seeni soxla loolu mën na nekk ba tey mën nañ leen di sampal benn usine boo xam ne dañuy jël ay nit ñu fay liggéeyee buñ liggéeyee ba mu meññ ba mu am ay bénéfice ñu fay liggéeykat ya la ca des ñu jox ko ñi nga xamee ne ñoom moom usine ba wala ñoo moom entreprise ba wala ñoo moom tool ba ñu faj seeni soxla loolu système la loolu nag état islamique moo ko mën a doxal waaw lu mën a nekk la système la boo xam ne dafay laaj lëngoo ànd dimbalante jàppalante léegi nag ñu dem ci troisième élément bi nga xamee ne am na xàq ci asaka mooy al aamiluuna alayha ñi nga xamee ne ñooy dajale asaka di ko saytu jëlee ko ci ñu woomal ñi dajale ko xam nan la toll ñu seet ci ñi ko eyoo ci ñu ñàkk yi ñu seddale leen ko ñooñu am nañ cër ci asaka ji dañ leen cee war a jox lu tollook seen liggéey ba ñuy liggéey jox biñ leen di jox nag payoor la pour liggéey bi ñuy liggéey ci asaka ji ndax buñ leen fayut seen temps bi ñuy jox dajale asaka ak séddale ko dana dem ci haba an manthuran ndax temps boobu mënoon nañ ci dem liggéeyi leneen faj seeni soxla ñu jël temps bi jox ko dajale asaka ak séddale asaka bu ñu leen joxul cër ci asaka ji kon danañ toog ba nekk ñu ñàkk dund ci ñàkk dund ci coono moo tax yàlla bi muy tudd ñi ñu war a jox asaka mu tudd leen ne ñoom ñoo nekk ci ñetteeli place bi gannaaw faqiir ak miskin mooy al amiluna alayha tey nag am na réew yoo xam ne dem nañ ba yegg ci samp ay mbootaay ay kuréel yoo xam ne ñoom lañuy dénk dajale asaka yi jógee ci ñi woomal ñi saytu ko ba xam nan la toll saytu ñu ñàkk ñi ko eyoo ñu séddale leen ko ñu dem faj seeni soxla am na ci yenn réew jullit ñi tàmbali na am fii ci senegaal gii gis naa ñaari kuréel yu nekk dakaar ñoo xam ne ñu ngi taxaw ci liggéey bu mel noonu di ko doxal loolu nag lu mën a yaatu la ba yegg ci yeneen dëkk yi yegg ci yeneen réew yi loolu mooy tax asaka mën a taxaw taxawaay bi taxoon yàlla farataal ko mu nekk ñetteeli ponk ci ponk lislaam yi nga xamee ne ñoo ko yenu te mu nekk juróomi ponk kon nga gis ne al aamiluuna alayha ñooy ñetteeli xaal bi nga xamee ne dañuy jël asaka am nañ cër ci asaka te yàlla moo leen ko jox bu jëdemee ci shafii yu ñu laaj ko na ko waaw al aamiluuna alayha liñ leen di jox ci asaka ji nan la war a toll Shaafi'i yu mu ne buñ xoolee asaka ji xaaj ko juróom-ñetti xaaj benn xaaj ba lañ leen war a séddale ñoom ñuy liggéey ci asaka ji muy al amiluna alayha ñu ne ko waaw bu fekkee loolu tuuti na méngawut ak seen payoor mu ne ñu dem ci baytul maalil muslimiina jël ca alal jooja mottali leen li manque ca lañ leen waroon a fay gannaaw bañ leen joxee seen un ba ci asaka ja mais daal waruñ jël lu weesu un ci asaka ji loolu mooy gis-gisu Shaafi'i te lu yenu maanaa la ndax juróom-ñetti xeet lañ wax ne ñoo war a jël asaka kon buñ dajalee asaka ji séddale ko juróom-ñetti xaaj benn xaaj bi ñu jox ko benn xeet ci xeet yi war a jël asaka loolu xel war na ko mën a nangu yaakaar na kon xalaatu Shaafi'i yu boobu ñu bëri war nañ ci mën a ànd ak moom bu ko defee nga gis ne ñeent ñett ñooñu yàlla tudd ka ñeenteel mooy almuallafa qulubuhum mooy tuubeen yi ñi tuub dugg ci diina lislaam man nga tuub laata ngay tuub am nga xëj koom-koom bu bari wante bi nga tuubee sa mbokk xeex nañ la xeñ la sa alal ja bund xatal la ba génnee la fa nga dëkkoon nga nekkoon ku woomal nga mujj nekk ku ñàkk nga dem ci sa mbokki jullit ñi kon waruñ la seetaan dañ laa war a jàppale dañ laa war a dimbale ba doo murtat génn ci lislaam xeeb jullit ñi ñu xemam loolu lislaam bi nga duggee nga xam ne diina ji mën nga ci sax ànd ak sa mbokki jullit ñi loolu moo tax yàlla ne yow mi nga xamee ni ab tuubeen nga nañ la jox ci asaka ji tàggat sa xol ak sa xel ci diina lislaam nga ànd ak sa mbokki jullit ñi dund ci njekk ak teraanga loolu moo tax koo it ñu ngi koy xeexal ñàkk ci cër bi ñu koy jox gannaaw ba mu nekkee ca beneen diina tuub dugg ci lislaam wala ñu jox ko ngir xemem loo ko mbokkam yi nekk ca beneen diina gis ko mu nekk ci situation bu baax ñu xemem dugg ci diina lislaam pour am lim am loolu danay tax ñu jox mu allafa qulubuhum ci asaka ci mais lépp mu ngi dugg ci buntab xeex ñàkk rek ñeenti ñii muy faqiir bi di miskin bi di al amiluuna alayha nekk al mu allafa qulubuhum ñoom ñëpp li ñu leen di jox dañ koy jëfandikoo benn ñu lekk ko wala ñu naan ci wala ñu sol ci yére wala ñu dëkk ci kër liggéey ci kër guñ dëkk wala ñu faju ci buñ feebaree wala ñu fañ ci am njàng amma nag ñeent ñi des lañ leen di jox ci asaka dañ leen di fajal yeneen soxla yuñ am yoo xam ne da leen di mën a tinki dañu leen a tënk la leen mën a tink mooy alal fu alal jay jógee ci asaka lay jógee buñ jëlee ku mel ni dafa nekk ci moomeeli jàmbur ba jaam daan am nga xam ne danga am koo xam ne doomu aadama ko moom di ko liggéeyloo guddeeg bëccëg di ko mbugal di ko teg coono l'islam bëgg doomu aadama am liberté am mën a liggéeyal boppam mën a gàddu dépense boppam samp kër comme ni moroomam mi sampee kër am soxna am njaboot di joxe dépense di am jàmm ak salaam l'islam ne jox leen ko ci asaka ji bu signé contrat ak kane moo ko moom di ko jaamloo mu am liberté mën a dem jaamu yàlla tranquillement mën a dund tranquillement moo tax li lislaam ne jox leen ko ci asaka ji mu dem fay ka ko moom mu jox ko liberté mu dem ànd ak mbokki jullitam yi jaamu yàlla tabaraka wa liggéey daan dooleem dundee dundal boppam dundal njabootam kooku kon dañ koy fajal gàcce dogal ko buuma ak njaam moo tax li lislaam di ko jox ci al asaka ji pour dindil ko ñàkk bu muy dund boo demee ci juróom benneelu ki eyoo asaka kooku mooy borom bor yu bari yi ñi nga xam ne dañoo leba leba leb ba lab ci géeje bor leb nañ ngir seen soxla bopp wala leb nañ ngir soxlaay jaami yàlla yi jaami yàlla yi ñëw ci ñoom di sàkku ndimbal amuñ luñ leen jox ñu dem lebi mayee ko wala leb nañ ngir faj seeni soxlaay bopp ba lab ci géejeeg bor ba mënuñ fréquenté ci milliers yi julli ñi di fréquenté mënuñ dem ci jàkka ji julli julli mbooloo mënuñ dem ca daayira ba mënuñ dem ca ziyaara ba mënuñ dem ca gàmmo ga mënuñ dem ca dëj ye mënuñ dem ci ngénte ye ñu fokk ñu dimbale leen ñu dellu ci société bi nuñ leen di dimbalee fayal leen seen bor ya fu alal yay jógee ci asaka ji ñu mën leen di récupérer ñu dellu ci mbooloom jullit ñi ànd ak jullit ñi kooku xeetu ñàkk la lislaam dafa ñëw pour xeex ko di jëfandikoo élément bu am solo mu tudd asaka di benn ponk ci ponk lislaam te moy ñetteli ponk ci ponk l'islam yi kon ñoo moy al-gharimina moy juróom benneel yi nga xamé ne ñoy jël asaka juróom ñaarel ba moy sabilullah yoonu yàlla la ci njëkk moy jihaar daane tasaare yo lislaam samp l'islam ci gox yi ci aduna bi yépp wote jëme ci yàlla bil hikmati wal mawisati al-hasana ni ko yàlla waxee udo ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al hasanati wa jaadilhum billati hiya ahsan fokk nga am ndimbal ci daawa boobu ndimbal la nag soxla nga waruwaay soxla nga leneen soxla nga leneen soxla nga leneen bu yegg ci ñi ngay woo kon ñu jox la ci asaka ji nga dimbandekoo ko loolu moo tax ñu tudd ko sabilullahi sabilullahi gën na yaatu loolu mën na dem bañ tabax ci asa alali asaka ji hôpital bo xamné fuqara yi masakin ñofay ñoo fay fajoo wala ñu samp jàkk jo xamné fuqara yi masakin soxla won nañ ko ta mënuñ ko amal seen bop wala école bo xamné doomi masakin fuqara yi ñu ko soxla mënuñ ko amal seen bop ñu jël ci alali asaka ji tabaxal leen ko lolu sabirullah la ba legi hôpital école dara jakk juma demé do yeb sabirullah la fek inter bi mu ngi delu ci maslahatu masaakin yeeg fuqaraa yi mën nañ jële ci alal jooju financer projet yooyu yëpp loolu sabilullahi la ba ca mujj mooy ibnu sabili jaamam yàlla bu laxas uti wërsëgu lew wu dagan jaamam yàlla bu laxas uti xam-xam ndax yàlla santaane na njàng tala yonentu santaane njàng wax ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wax ne utlubul ilma walaw bi siin nga départ pour sàkku ji xam-xam ak gàllankoor ci yoon wi nañ la dimbale nga yegg fa nga jëm jot ca la ngay wuuti manoo dem ñu dimbale la nga dellu fa nga jógee woon ndax kuy dem ba xamuloo fooy dem mënatoo yegg fa nga jëm dellu fa nga jógee woon moo gën kon ñu dimbale la nga yegg fa nga jëm ci jàmm ak salaam la nga fay wuti nga am ko dellu si ci jàmm ak salaam loolu alalu asaka ji mën nañ ko ci génnee dimbale la ci nga yegg wala nga wëññeeku dellu si fi nga jógee woon bu fekkee mënatuloo dem juróom-ñetti ñii la yàlla wax na nañ leen jox ci asaka ji ñu faj seeni soxla ñu tàqale koog ñàkk tomb bi ci mujj nag ci waxtaan wi mooy xaaj boo xamee ne dañ leen di fàtte bu ñuy lim fuqaraa ak masaakiin yi pourtant ay fuqaraa lañ de Ablaye Ndiaye ngi nii wala Penda Ndiaye ngi nii góor day liggéey jigéen di liggéey ñu ngi xëy di gontu di fayeeku weer dee wala di fayeeku bés bu nekk buñ xëyee ñu fay leen wala weer wu dee ñu fay leen wante malheureusement lañ leen di fay mënta faj seeni soxla lu tax soxla yi moo ëpp lañ leen di fay wala lan lañ leen di fay njaboot gi bëri na ba nga xamee ne yàlla moo joxe njaboot gi te lam leen jox joxul leen ci alal lu leen mën a dundal ca la ñuy fayeeku la ñuy fayeeku daal doyul leen ñooñu dañ leen di jàpp ni ci fuqaraa yi lañ bokk ak masaakin yi loolu nag mu ngi gën a bari ci ñan mu nga gën a bari ci ñi nga xamee ne ay ouvrier lañ wala ñi nga xamee ne lenn la ci ay baykat la ñuy bay doy leen dund ci at mi wala ñi nga xamee ne ay fonctionnaires yu ndaw lañ seen salaire dafa tuuti doyul leen wala ga am ñoo xam ne ñu ngi fayeeku mais njaboot gi moo bari ba mënuñ leen di dundal ñu ne ndax am nañ sañ-sañ ci asaka ji am ñu ne déedéet ñu ne leen déedéet am nañ sañ-sañ ci asaka ji ndax yonenti yàlla alayhi salaatu wa salaam dès le la wax ak saxaabaam yi gindi leen xamal leen na leen bàyyi leen xel ci xeet yii ñi nga xamee ne dañoo ñàkk te am nañ kersa laaji ñu ngi daan seen doole duuñ ay laago am nañ métier am nañ liggéey buñ liggéey yaacaaraluñ ñu ngi lu di def effort di xëy di gontu yendaluñ fanaanaluñ ñooñu wante lañuy am doyul leen mu ne leen nag ñooñu bu ngeen leen sàgganee bàyyi leen xel ci ñoom mu ne leen bu leen soobee jàng leen alquran ngeen xam ne miskin duhul ne rek kii am doomab tàndarma tey ëllëg mu am ñaari doomi tàndarma lekk wala mu am tibab cere wala bu ceeb tey lekk ëllëg mu am ñaari tib lekk muñ bu ngeen jàpp ni ñooñu rek ñooy miskin déedéet am na ñeneen ñoo xam ne am nañ lu ëpp loolu mais amuñ lu leen suur amuñ lu leen doy moo tax jàng leen ci alquran bu leen soobee yàlla wax na ci alquran laa yasaluuna annaasa ilhaafan ci suratul baqara آية بكما سيل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا نيو يال تدني أي فقراء لن وانت دنيو جهار تيونو يالا دنيو غور غولو دي دان سين دولي هيد نك pour faire mais jihaad bi ñuy jihaad ci yoonu yàlla dox na seen digganteeg liggéey ak sàkk wërsëg moo tax amuñ jot ga ba am luñ lekk lu leen doy bàyyi leen xel ci ñooñu boo leen gisee nag yow mi xamul dara da ngay jàpp nañu woomal lañ te fekk amuñ dara lañ am doyul leen wante boo leen xoolee ci seen jëmm ak seen colaay da nga xamee ne seen loxo jotu seen gannaaw ndax am nañ kersa laaj nit ñi bëgguñ déranger kenn kon bayi leen xel ci ñoom mu wax ci même barab ba ne bu ngeen bàyyee xel ci ñoom góorgóorlu leen ne ngeen jàppale leen ngeen xam ne wa ma tunfiqu min xayrin fa inna allaha bihi alimun lépp lu ngeen dépensé ci lu yiw ak lu baax dimbale seen mbokki julit ñooñu bañ lekk ba suur sol naan faju am fuñ dëkk am soxla yu ñu mën a fajal seen njaboot gi ba duñ dund ci coonoog ñàkk ak ay jafe-jafe ngeen xam ne yàlla xam na ko gis na ko yëg na ko te dana leen ko fay